asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu leen bokk jullit yëpp ñun bokk taalib yëpp maa ngi leen nuyu ñu jot si nuyoo bi Serigne Touba Serigne Mountakha Mbacké ak njabootu Serigne Touba yëpp ak ñun taalib yëpp nuyu soxna soxna Bayli Mbacké turu soxna Maymuna bi ñu nuyu njaboot bi ñëpp. yeesalaat bis bi nga xam ne moom euh, bis la boo xam ne bii euh, bu am solo la ci euh, lislaam ndax bu na xam ne laylatul xadr ni mu toll ci lislaam waaye nag li ci gën li ci gën a yéeme rek moo di soxna si ba mu koy tàmbali dafa jógee Daarul naan defar yam defaroon di ko seet fekk Cheikh Maodo Fadal mu di bernde yu gudd lool Cheikh Abdoulaye mi ñu wax léegi ne boo fekk ne sëñ foto waaye mu fëgg ne ko man soxna may mu daal di génn eh, booba sëñ bi da ko wax booba ne ko dana dana dana dem ba doon ay ay gëléem kon lépp kon xéwal gi ñëw na xanaa di ñaan rek suñu borom booy leen bàyyi ba eh, soxna si moom la mu doon liggéey seen tuwaa waajuram bu tedd wa sëriñam lépp mën na waaye ñun ñëpp deseel rek eh, ñu jaar ci barkeem ba am nga demul Xadim Moustapha loolu rek lañuy ñaan di ñaan suñu borom mi nga xam ne dara tëwu ko nag ni ñu ko teewee ren ñu teewaat teewaat ko na gën a déwén mm-hmm. te nun ñëpp ñu yokk bu ko rek jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu